في سفر هماني على ماهم مع الحس والسفر ñëw nañ fi tey comme ni ko ñëpp xamee ñëw pour ziyaara si sëriñ bi sëriñ Mountakha Bachir Mbacké xalif général de Mouride waaye ziyaara tam mboolem njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gi nga xam ne dañoo amante ak ñoom ay kóllëre muy kóllëre yu yàgg ay kóllëre yu sori ñu nekk ay soppe nekk ay xarit nekk suñuy sëriñ

kon war nañoo ñaan ko ñaanal ko yàlla loolu moo taxoon ñu ñëw fii tey pour ni ma joxe joxe ziyaare boobu. waaw loolu li ma ci jàngat li jàngat bu njëkk rek moo yitte xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy digal toujours ne nañ leen yëkkati suñu yitte ñun jullit seen yitte bi nga xam ne moom la moom lañ yëkkati fii moo tax liñ def yëpp ñu def ko xam nga mbir mu nekk soo ko gëmee ci amoo yitte sax doo ko def waaye car macha allah yitte am na gëm-gëm am na ful la am na xam tam li ñuy def am na. bu yooyu yëpp nag bu dajee bu ndimbalal yàlla ñëwee rek nga mën a def li nga mën a def yëpp loolu moo tax ñu liggéey liggéeyu rëy yi ñu liggéey yëpp ci tànk ci ginnaaw xalifa bi loolu moo tax tam ñu ubbiwaat ay projet yoo xam ne ñëpp a ko éem fa tabaarakallaa ñu ñaan yàlla yàlla dimbale ñu ba projet yooyu yëpp yàlla yembal ko ndax yembal ko mooy yembal luy jëriñ askan bi ndax loo xam ne kaay leen jaamu yàlla nga defaral leen bijou bu mel noonu kaay leen wut xam-xam nga ubbil leen bijou 37 milliards dama ne loolu bu fekkee nekkoo jullit kon jullit amul ci àdduna kon li ma jàpp mooy li muy def nii yëpp pour xidma lislaam la ak xidma Serigne Touba bi nga xam ne moo xàll ubbi pour ñu doxal fa tabarakallah mi ngi doxal mboole si ànd ak mbooleem ak ay rakkam ak ay doomam yëpp ñu ngi ànd ak moom di ko jàppale lépp ngi jaar comme ni ko lislaam bëggee lépp ngi jaar comme ni ko Cheikh Ahmad Bamba bëggee woon yonent bi sallallahu alayhi bëggee ko loolu rek ci la nekk fa tabarakallah ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiix fan wu gudd mboolem projet yi yëpp yàlla may ko kàttan mu yeggali ko ba yàlla may ko sax mu sémbu yeneen ci barke yonent bi sallallahu alayhi waaw loolu lu baax la parce que euh, waxuma sax politique waaye bi ñu yàlla wërsëgalee ñu nekk ay jullit jullit dafa am lu ko yàlla tënk dafa am lu ko yàlla sant li ko yàlla sant mooy mu fexe ba am ak jàmm mboolem askan bi wala mboolem xeet bi donc président Macky Sall jógee invité président Macky Sall invité président laay wàdd mu ñëw ci pale bi seet si ko loolu duñ ko def lu may en tant que avant ay politique en tant que ay jullit ñu rafetlu ko. rafetlu ko bu baax ci tam ko ci ñaanal yàlla yàlla defal ko ci tawfiix li nga xam ne moom la ci xalaat ba moom la ci ba bëgg ko ba def ko yàlla yàlla won ko lu ëpp loolu parce que defeewu ko dara lu may jàmm parce que dara xewul ci réew mi élection amul dara amul donc li muy def nii ku nekk war nga koo mën a nangul ne ak mbaax rek moo ko defloo parce que bu fekkoon da ngay jëm élection nga ne sax dafay wut ñu ko woteel waaye soxlaawul lenn parce que nit ñi voteel nañ ko kon tey def nii dafa jàpp ne moo jiite réew mi moo ilif ñëpp moo tax mu ubbi ay buntam pour ñëpp di yaatal boo xoolee action yi wala acte yi muy posé da nga gis ne ubbeeku rek ci lay dox ubbeeku ci lay wax ubbeeku moom lay jëf donc nuñ def lu may ñaanal ko yàlla moom it comme ci fan yu màgg yi yàlla dimbale ko semba mi sembu ci politique semba mi semb ci àdduna semba mi sembu ci biir réew mi yëpp yàlla may ko kàttan bu ko defee salaatu والسفر